saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Balla Gaye 2 may avertir Modou Lo Balla Gaye l'ancien roi des arènes Balla lion de Guédiawaye Balla Gaye le double vainqueur de Modou Lo xëy na daal di dànkaafu le roi des arènes Modou Lo Balla Gaye 2 la mu wax ci journal sunu lamb du conseil waaye dànkaafu la Modou Xarañ Lo damaa bëgg nga xam ne Ama Baldé i ngay bëreel ku mënta daan ci lamb ji amut kii baa Tafatine peut battre n'importe qui ku daan le géant di Bawol Tafatine mën ngaa daan ku ne ci lamb ji li Tafatine def daan le double def ci lamb ji daan le double roi des daan koo mënta daan ci làmb ji amut Modou Lo na xam ne Ama Baldé du ñeexu ñebeb kenn ci mbiri tafaatin moom Balla Gaye 2 bam ca waxee la mu xamle mooy liste bi ñuy bind mbëri ragal tafaatin damaa bëgg ñu génne ma ca ba mu set wecc tafaatin mënumaa jàkkaarloog moom daan ko ba noppi di ko ragal bu dee am na ay mbëri ko ragal ci làmb ji moom tafaatin man Balla Gaye bokk ma ci te liste mbëri ko tàppet bu dee sama tura nga ca bu yeboo génne ko ba mu Modou daa bëgg a leeral garaawut na ñëw rax ca dolli ne Bombardier moom balaa moo bàyyi làmb bëgg naa mu jëlaat sama revanche ak Bombardier bëgg naa ko balaa moo bàyyi làmb bu nu jàllee ca combat ba war a dox ci diggante Siteu ak Papa foofee Siteu jël na ko au yàgg na koo jël au moom doomu jàmm gën gi waaye tey la wàllu gën a ay bile examen daal moom tarkindaa bi bëgg ko essuwe moo tax ñamu woo ñu koy jàppale bokk na ci Quench Mama Lamine ak Abou yoon moo tax mu njort dafa war dugal recours ngir ñu leeral ko li ni mel ba ko Boy Dakar yégee dafa xam ne Tigo xaritu yaayam buy dugal recours di gën daanu daanu na keroog dimanche bu dugalaatee recours day daanuwaat ka daanu keroog dimanche ci stade Maniang Soumaré bu Thiès mooy daabu Texas première édition drapeau Idi Thiam président inakua boobee laay góote moo ko jël sukkër bi la def daabu Texas daan ko jël bu benn werante bu dee ca Mbour par décision arbitrale ñetti avertissement la ngeel joona am lamb jeex bu dee ordinateur gannaaw ba mu ñàkkee le février foofee ca arène Ngor Sid bu Fatick ci kanamu Doudou Sané dafa dawali ca ndangaan daa fay fekk gaaya dimanche ba ca ndangaan moom ordinateur El Hadj Ousmane la am final daa koy daan fa ñuy jeexale mooy ca grève bi arbitre yi grève week-end ñu génn arbitre yi fare ci Ndakaaru dañoo lànk ba tëdd ca ñag ba ne duñu sex sifflé seen grève mooy waroon nañoo sóoraale difficulté yi làmb ji nekkee gannaaw ba mu waxee fukki dëggam moom Pape Abdou Fall mu ne CNG dafa war a augmenter honoraire u arbitre yi ñoom li ñuy jot ci koppar ñoom arbitre yi dañ ko war a yokk bu dee Aliou Ndour chargé de la communication bu association des amateurs de lutte amal daa na jortoon naa ne grève bi dana am ñi nga président arrêté ne comité directeur bi ñoom la xam le mooy war nañoo trouver solution a a mbokk yi nii moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah